jiital force citoyenne bokk ci coalition Diomaye président yëkkati na kàddu yu ama am solo yu mel ni nit ñi bàyyi wunu ci xel kàddu la yu mu leen njiitu réew mi ma ki sàll mi mu dànkaafu dànkaafu itam képp ku ànd ak moom di fexe élection bañ am ci réew mi mbaa élection yu jaar yoon ñu bañ ko tëgg bu Bousso mi gëm ne ñu ëpp ci askan wi tey Diomaye candidat wu Ousmane Sonko lan jox bopp gëm na ni kon ñoom ñoo war a doxal bu nu weesoo ñaar fukki fan ak juróom weeru février bi nu nekk waral mu ni Macky Sall ki ñoñam lañuy fexe bu sottee ñoom ña farak jomaay farak Ousmane Sonko danañu am taxawaay bu kenn mësta gis ci Sénégal woowale taxawaay mooy samp ab gouvernement ci wetu bi fi bëgg a toog di doxal réew mi ndax jàpp ni askan wi ñoom lañu wóolu bu weesoo loolu it may mën a busoo daal dina yëkkati yóbbante yu am solo jëme ci képp ku ne Ousmane Sonko nga gëm mbaa projet bi mbaa namm nga Sonko mbaa itam gëm nga ni jomaay mooy Sonko bala ñuy déglu kàddu yi may mën a busoo yooyu nag ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ko gis bu leen fàtte it abonné te bës ci cloche bi ngir dara bañ leen a kon ñu ànd déglu njiital force citoyenne bokk ci coalition maï président di Maïmouna Bousso conciliation le ko tuddee am na nag ñu bare ñu bëgg a dëkkale ay système ak anti système coalition de la réconciliation moi, coalition bi nga xam ni day jéggi sunu ay diggante jéggi sunu ay différence jéggi sunu ay parcours mais dajale ñu ci sunu ben objectif moi le Sénégal parce que foofu la ñu toll léegi tollootuñu ci ay doctrine

kon foofu la Sénégal toll sauver sunu démocratie sunu liberté démocratie bi nga xam ne tey mu ngi dundu waxtu yu metti fële ci assemblée nationale te dara wareewu ko lu dul dénk sunu réew ci loxo yoo xam ni ay bu ñu ko xamoon askan yu metti na lool ndax lii ñu dénkaane de bañ koy dénkaane ci mbégte lañ ko joxe woon mooy 2012 waaye daa mel ne pour jëlaat ko weex nañu xat suul nañu sunu doom yi dee nañu xamuñu ku leen rey sunu rakk yaa ngi ci kaso yi sunu mbokk yaa ngi ci géej gi kaa yi fees na dëkk bi metti na ku dem marché xamoo looy dund nit ñi amuñu lu ñu suturloo Sénégalais yëpp sonn nañ te fii ku ne jaar nga fi dem Abdou Diouf dem na Ablaye Wade dem na Macky ak i ñoñam ni ñu leen dénk duñu ko delloo waaye nag dama naan lu waay bëggul mu egsi bu ko jàppal bis le vingt cinq février dafay egsi te egsi na ba pare te nag ñun fi ñu jëm ragaluñu ko ñeme nañ ko ndax lu tax ñu ñeme ko mooy barki démb dong dañ fay dem les élections ñu dagg suñu list ñu ànd ak le président Ousmane Sonko mu won ñu lan mooy le don de soi duma candidat dinaa campagne ñu xuus jàll dama ni dañoo xuus jàll barki démb dañoo xuus jàll kenn ci ñun du candidat ñu yóbbu l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale yoon boobu kese lañuy jaaraat nag yoon boobu kese lañuy ñuy xuusaas jàll dama bëgg ngeen wax kan moo pare pour campagnal bassiru Diomaye fay su fekkee pare ngeen rek yëkkati leen seen loxo yéen ñëpp kan moo pare ndax mbokk yi nag yoon bi lëndëmul ndax won nañ ñu yoon bi président Ousmane Sonko won nañ ñu yoon bi nam defoon rek la ñuy defaat fa mu jaaroon rek la ñuy jaaraat la mu jaaroon la mu yéegoon la mu tawoon la mu xiinoon la mu xëyoon la mu gontu woon kenn si ku nekk fii mën na ko te dina ko def ndax nag trois minutes RTS ñun xëccoowuñu loolu li ñuy xëccoo mu ci loxo sénégalais mooy seen carte ku ko yor yaa ngi yoreel bor ku ko génnewul fayoon ñu bor ku ñu namm te joxoñu sa carte d'identité sa bëggeel des na ku ñu bëgg te niitoo sa carte d'identité dama ni sa cofeel des na cofeel bi foofu rek la bëgg naa la fonk naa la sopp naa la rëccu naa lu tax nga ne ci kaso bi bëgg naa defanteek yow won la ne la doo too rëccu xeex bi nga xeex won président Ousmane Sonko doo rëccu tëj biñ la tëj doo rëccu fay nga nekk bàyyi sa njaboot lenn kese moo koy def mooy carte électeur yi loolu kese moo koy def kon sénégalais bu ci nekk sa cofeel sa bëggeel làmb ko ci sa poos nga téye ko ba mat sëkk boole koog fulla nag bu bis baa nag ñu dem vote ji waxi report ñoom ñoo ko wax ñun nag coalition bii lu ñu wax lii la le 25 dinañu vote ji ci kàttanu suñu borom lu mën a am dinañ vote waaye bu ñu voté ba pare wala bu président Macky Sall defee lu ko neex ñun la 2 avril bu ñu sénégalais yi tabbee ñu jaar ci yoon wi Nous tabou dinañ monter un gouvernement national fi ci avec ou sans élection lolu pour muy lèr ndax bëgg bëre bañ ndax té nak ñaari combat mo am par procuration président Macky Sall dafa tànn Amadou Ba ne ko continuité sénégalais yi nag xëy na ñoom ñooy xool ndax bëgguñu seen bay def continuité de malheur continuité de coono continuité de problème continuité de njuuj continuité de tête de toroxal continuité de tous ces problèmes là

heure wax rek mo jot wax ak président Macky Sall ndax té coalition bi ce sera la coalition de la victoire ce sera le prochain gouvernement de ce pays là donc euh, ñu ngi ñaan yalla ñu défé la prestation de serment devant le conseil constitutionnel Oui, dama ni bu lolu amul na sénégalais xam ñun jël nañ suñu décision élection ou pas élection le 2 avril gouvernement dina am ce sera le gouvernement de Diomaye président merci beaucoup lii Maimouna Bousso wax kenn mësu koo gis ci réew mi di Sénégal te bu amee mooy élection yi ñëpp xaar moo dem ñaar fan ak juróom weeru février ñu nekk amul ci ni mu wax a amee muy doon itam guléet doon itam deltu ginnaaw gu leex leer ñi ci wàllu démocratie bu Sénégal ndax réew mi ñi fekk démb ña ngay fàttali ni xeetum crise bu ne jaar na fi rawatina bu 1962 bi féewale woon président Senghor ak président Mamadou Dia waye lolu sax taxul won ñu dakk ay élection ciowal mai 68 jaar na fi ciowal 73 ak yeneen xew-xew yu tiis lool ci réew mi waye lenn ci yooye la jafe taxul won élection présidentielle ñu dakk ko ci mim réew di Sénégal gisaguñu nak ci atum 2024 bi lan mo waral ñu mëna dakk élection présidentielle ludul xeyna ay yu ay politique bëgg nas loola nak bu soté kenn xamut fan lay mujj ndax coalition président ci kàddu Maïmouna Bousso taxaw nañu temm ngir wot googa war a màndargaal bëgg bëggu askan wi ñu doxal ko doxal gi mooy samp seen gouvernement te loola nar a doon mbir mu doy waar lu mën a jurówu ay ndax xëccoom réew leer na ni su boobaa ci la Sénégal di tàbbi